منطق إلى ودون تأقلي مع عبرة إلى ودون بياني مع منطق إلى ودون تأقلي ودون إلى ودون بياني فيلك يا ابن محمد ناداني صيام تحقق جوهر الإنسان moom sa maam Serigne Cheikh Tijaan si mboktume fa rakkibtume wa kazaara kullu ajibatin min hikmatin wa maliatin awsaani wa sawqu fiika wa immati fi ragbati bi majaayiril ayaati qad qaadaani maa mantiqul ilaahi wa duuna taaquli maabratun ilaahu duuna bayaani fa tasawada min nafsi bi kulli badiatin wa bada'i tabqa ala al almaani الثاني وقال سر السمام ما ورأيت أنك لرسالة عامل وعلمت أنك بعد سوء أماني تبقى وفق الزمان وأكمه وعظمت بعناية والدمان فكأنك الفرقان في جاسي na leen nii na leen nii màggal maam Cheikh Ibrahima Aydara te muy sëriñ Cheikh Tiyaan si Maktoum waaye xoolal xoolal si Ibrahima Aydara mii kon nga buntu ñii di tëral leen yeewu leen ñu liggéeyal diine ji waaye xoolal si Ibrahima Aydara ndeysaana mbag bu tàbbee ci teen dañ ko caa yoor alaaja bu simaal ñi yoor mu sirik Ibrahima Aydara mu tànk jox ñu naan bëddu yi jëggaañi ndaw yi dem buruñ bëgg a lab ndëkkatu yow doom bi ci buru du lab sirik Ibrahima Aydara mi fee na lab bi gaay la boon jaajëfee jaajëfee jaajëfee ajab gasim Malick yaa ñu ko wan waa Xorosi ngay ma ay dara ngoog ndeysaanam aqul ay lay dëgëral moom la diine ji fal waaye xoolal moo tam tànkal maam muy sayiduna Muhammad moo tax xoolal sama am siraaji maa ngi leen ko sama am mooy fawaa kabida min hubbi man lam ulaaqi wa barustiyaaqi lil ayaami hoolu sama am siraaji maa ngi ne sama am yonent Yàlla Muhammad mooy li bëril awaa xawrum faman raama nayloo yëkkulu walaa yu saa ili yu suulu naan ko fanaarul awaa ولا تسكى من البود والكلا تقد ولا تبوى جواهياتين سلام سراج ما نجم تيال محمد وقرقم بشملان الهواء قد قتلت بآدم يا أن dayfo yàlla fay yàlla wéral cër yi barkeel yëngatu yi te sàmm baat bi may ñu ñun ñëpp gudd fan ak wér góor gi Sow ñu ngi koy nuyu al muazzin Mouhamad Tall ak alxaaji Baara wan fa tabaarakallaahu kon mu mel ni dañuy ñaan ñëpp rek xew-xew bi ñu jëm muy suñ xew-xewi bopp ñun ñëpp mu di gàmmu gi le vingt huit décembre incha allahu fii ci amokat ci fiñ ko daan defee at bu jot kon mu mel ni ñaari semaine rek a ci des ñuy ñaan rek li daan am na am mooy yar ak teggin ku ñëw loo ñu mën a lu dul yar ak teggin rek gënaluñu enveloppe sax li muy neex neex ku ko am mën nga ko denc te nga indi yar ak teggin boole ci dëglu moo ñu gënal sax alal ñun te du fii rek laa ko wax wax naa ko waa Paris keroog gàmmu Cerno Abdourahman Bari bi bi muy waxtaan ba nit ñi di jóg di xaalu ne dañuy laaj àddiya ma ne ko dimbale ma rek nga toog am na lu ma gënal àddiya ji mooy nga toog dëglu ndax ñun xaalis indiwuñu fi dañ bëgg rek li ñuy wax ñun ak yéen ñu bokk ko jëfe loolu laa wax fu ma mës a demit ci Europe yëpp looy wax ca jàmbur ya nag sa bopp ci gën a yeey kon maa ngi ñaan muñ ko daan ñaane ci njëkk ak teraanga ci orma ndax kenn du woo say kilifa ba ñu ñëw ngay def suul adab mooy ñàkk yar wala ñàkk teggin te alhamdulilah kilifa yëpp danañ ko def niñ ko daan defee ñëw niñ daan ñëwee ndax ñoom ñëpp ku ci nekk fañ daan jaar ak yow ci jox lay yar teggin yóbbul la sa carte li nga moom def nañu ko ba incha allah ñoom ñëpp ñu koy waajal dalee ko ci suñu xalifa bi yal yàlla guddal fanam muy Serigne Cheikh Tidiane si al maktum ak suñu way wayjur bu baax wi Serigne Abdoul Aziz al amin altine rek ba une heure matin maa ngi ci. këram ci néegam sëriñ Mbaye Abdoul Aziz démb rek maa nga fa ci moom Cerno Abdourahman Bari boggal tabaarakallaahu dafa waroon ñibbi sax boggal waaye nee na gàmmu gee tax du ñibbi day toog ba gàmmu gi wees mu door a dem sëriñ Haadi Ñas ak ñoom Sidi Maxtaar Kunta ak sëñ Abdou Aziz Mbakkeek sëñ Suleymaan Sekk bu cene baag doomu soxna yëpp niñ ko daan defee murit tiijaan xaadir laayen ibaadu rahmaan ñëpp li ñu soxla daal mooy mu nekk li li may faral di wax gàmm di siècle waaw na nekk rek gàmm di siècle gàmm di siècle mooy bu mu noppee keneen dootu ko mën a def waaw buñ gàmmoo ba pare nga xam ne ku gàmmooti da ngay jéem waaye di nga da ngay tële ndax doo ko mën loolu laa ci bëgg te loolu yar rek moo ko mën a maye ndax bu dee xaalis ñi ñu ko ëppale bari na bu dee matériel ñu ñu ko ëppale bari na waaye la Cheikh Alxaaji Abdul Aziz daan wax rek laay wax yeneen Seydi Xaaji Malik daf leen daan wax ne doom lu ngeen mën a am ci alal na ngeen ko nëbb ndax am na ku leen ko ëppale lu ngeen mën a am ci xam ngeen ko nëbb ndax am na ku leen ko ëppale seen juddu mu mën a toll na ngeen ko nëbb ndax am na ko tolloog yéen wala mu ëppale leen ko seen wilaaya nu mën a toll ci yàlla nëbb leen ko ndax am na ko leen ko ëppale wala ngeen tolloole ko mu ne waaye yar ak i teggin nag lu ngeen ci am bu mu doy wane leen yépp mu ne ndax yar ak teggin mooy taxa am yàlla te xam yàlla ak am yàlla du benn te barab yu mel nii nag dañuy jëfandikoo li sëriñ Babacar si radiyallahu anhu daan wax ne man baabakar de xam naa taqee ca làmb ja setee ca jàkk ja waaye xawma ma nag taqee ca jàkk ja fooy setee ji te yàlla wax yonent bi ne ko ci xadiisul xudsi yonent bi wax ne ju'ilat lil ardi masjidan defal nañ ma suuf yépp muy sama pàkk kon rawati nag foo xam ne ay nitu yàlla xaqi xaqan ñoo fay teew yoo xam ne kenn laam-laamewul seenug wilaaye ca yàlla loolu nag ñooñu nag barab bu ñuy teew ku amul yar moom nga fa yàqoo be faw ndax du ñoom kese ñooy ànd dañuy ànd ak ñu ngeen dul gis ñooñu nag ay mbindeefi yàlla lañ yàlla bind leen boole leen ak ay mitam kon nag la sëriñ Babacar si daan wax ne Tiwaawoon ku fi gis xaj sax bu ko dóor bàyyil rek mu dem waaw am na ko fa mës dóor xaj xaj bi dafa wëññeeku ne ko diw man ngay dóor waaw ni ma leen xamee laa ko xamee mu ne laa ilaha illallah ñu yóbbu ko ci sëriñ Babacar si bi ñu ko yóbboo ci sëriñ Babacar si mu ne ko am nga sens bi nga ne laa ilaha illallah. waaye teewul dafa wéradi ba nim génn àddina waaw ku gudd fan la nag waaye dafa wéradi ba nim génn àddina te sëñ Babacar si daf ko ne am nga sens bi nga ne laa ilaha illallah bu dul toon loolu Babacar du la mënal dara bàyyi leen lu ngeen gis ci kër gi dóor am na nitu yàlla yoo xam ne melokaanu xaj la indi ñii melokaani golo ñii melokaani muus ñii melokaani janax ñii melokaani kaña mbootaayu diine ak jotaayu diine loo gis bu laal am na ci mbokk moo xam ne fii lañ doon def conférence benn kaña dugg si ci biir tànt bi mu ko ca la doxee rek moom benn muuy ji boromam te bi mu koy kajji maa ngi ko naan déet déet déet fii ci géej waay fii bu may wax dañ nit ñi dañuy foog ne ay caaxaan la waaye weddi gis bokk ci weddi gis bokk ci su ko defee nag yar ak teggin rek moo la ciy génne loo gis rek jàppal ne lii mbindee fi yàlla la nga ormal ko melentaan sax boo koy rey reyee ko yërmande te xam ne bu neexoon yàlla mu def la ngay melentaan wi melentaan wi di yow soo koy rey sax dawalal yërmande ci rey bi nga koy rey donte moo la mat te nga xam ne def nga yàlla bàkkaar bopp bi la melentaan bi def te mu bàyyi la ngay daagu ku yeggul nag ci boobu la niveau nga am tuuti orma rawatina doomu aadama doomu aadama yàllaa ko fonk kon nag ku mën a doon nañu fonkante rek te nag ñi nga xam ne ñoo moom ñoo dëkk ku la joggi sax ne ko baal ma ah, ne ko baal ma tabaarakallah ku la joggi sax ne ko baal ma siis boo gis nga gis kuy xiim xiimal amul fu mu toog te yow mu wóor la ne ci xadara bi nga bokk jógal jox ko sa siis mu toog nga toog ci suuf ndax ci suuf yëpp dañ koy lal moket man mii ci suuf lay toog waaw ah, fa gëj naa fàttaliku fu ma toogee ci kaw kon ñun ñëpp nañ bàyyi xel rek bés bi fa tabaarakallaahu ah, ahsanul xaaliqin yal nañ ci yegg ak jàmm ah, eh, mu fekkaat ñu fi déwén ci jàmm te it dafa tombe ak bu bés bi del see mooy ziyaare Louga mu ñaari xew xew toppante daanaka bu del siwaatee mooy gàmmu Tiwaawan suñu bési gàmm gi bu del see mooy ziyaare Louga bi ziyaare Louga bi nag bii yoon damay profitoo waxaale ko ci bii yoon huit heures na fi fekk ñëpp te dinaa ko wax ci gàmmu gi insha allah ndax dañ toujours lañuy naajeet yegg Louga te dañ bëgg yegg Louga añ noppaleku tuuti door a dem ci dal ba Thierno Bachir ak may wax sax ni dafa bëgg defar yeneen tant yoo xam ne ci dal ba la ñuy dal mu defal ñu fa ay duus yoo xam ne ci biir euh, course bi lay nekk mooy Aprodac yi kon nag loolu yëpp bu ko kilifa di daj ci yow waay waay waay kaay dugg ci kaar yi dem feyoo defoo dara waaye alhamdulilah ku toog ba 9 sa kër bu xanaa jinne yi yóbbu la waaye doo fi fekk kaar bu la yóbbu loolu it nañ ci bàyyi xel ñun ñëpp fa tabaarakallaahu kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw fa tabaarakallaahu ñiy organiser dañu bëgg àjjuma le 27 maanaam buñ suba la gàmmu gi àjjuma boobu duñ xadaraa fii ca tànt ba la ñuy xadaraa dinañ ko defar ba mu baax tabaarakallaahu ñun ñëpp góor ak jigéen ñu dem xadaraa foofu. ndax barke gën a barkeelal place ba ndax barke na ba noppi gën koo barkeel waajal bés bi waxtaan fa it fa tabaarakallaahu ah site internet bi it maa ngi ñaan képp ku ko xam nga def ko ci sa Facebook partagé ko jox ko keneen du noonu lañ koy waxee ah, ndax man yooyu dama ci xamut dara nuñ koy waxee waaw ku ko am def ko ci sa Facebook partagé ko keneen kooku partagé ko keneen kooku partagé ko keneen dafa mel ni waa Europe ñoo ci ëpp doole sànq ñu ngi may limal ki yore site bi mu ngi may wax ne soixante cinq cinquante pays ñu ngi koy cinq sur cinq muy site bi te daaw rek lañ ko ubbi amagul at gàmmu gi di ñëw lay am at waaye nee na waa Europe yi France Espagne Italie ak. Euh, Euh, euh, Belgique yooyu ñoo ëpp luñ koy consulter ma ne ko nag ñoom dafa mel ni ñoom ñoo gën a soxla diine ji ndax ñoom ñoo ci gën a tumaranke suñ mbokk mi xam na ci dara waaye na ngeen ko partager rek dinañ def ay brochure yu tuuti mooy sit bi du ñetti w la point xadara tiijaan point org fa tabaarakallaahu danañ ko bind ci ay kayit yu tuuti ci bés ba di ko séddale ku ko am rek jox ko sa morom salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.